ngir wàññi li ñu duppee flux financier illicite maanaam xaalis bi nga xamante ni génn na réew mi ci anam bu jaarul yoon faw ñu dooleel lanceur d'alerte yi alal boo xam ne ni mu ngi jóge ci benn réew di dem feneen ci bitim réew ci cay anam yoo xam ne ni jaarul yoon donc loolu la ak itamit naka la fexe ba alal yu mel noonu daal lu koy mu dellusi dellu si maanaam recouvrement des avoirs donc loolu moo ñu fi dajale woon muy liggéey bu am solo boo xam ne ni ñun daf ñu ci sawar parce que dañ ci liggéey bu yàb baax a baax surtout ci wàllu lu jëm ci aspect commerce bi ak fiscalité bi nga xam ne ni boo seet flux financier initial yi loolu mooy représenté 60 plus de 63 pour cent. ngir ñoŋal li ni mel nag faaw ñu xool doxalin bi ñu war a jël. parce que wax boo gis da nga koy teg ba mu leer ba nañ ràññee lan la suñ ko ràññee nga mën a sensibiliser nit ñi. muy acteurs yi am pouvoir de décision muy citoyens yi ñu xam parce que bu ñu amee prise euh, prise de conscience ñoom it dinañ mën a gën a dooleel euh, xeex bi nga xam ne ni moom moom la ñuy def pour loolu euh, li nga xam ne ni mooy li ñu ci ñàkk parce que ci ñàkk lu bëri. Sénégal ba jamono ji ñu nekk amagul lanceur d'alerte coordonnatrice kuréel bi di PLAF moo ngi ñëwaat ci li ko mën a waral. amul loi ñoo xam ne mën nañ leen protéger. ce qui fait que lanceur d'alerte yi dañuy ragal euh, génn euh, wax loo xam ne dañ ko xam euh, sur des activités yoo xam ne c'est illégal parce que du ñu xam lan lan moo leen ci fekk. donc moo tax ñu encourager gouvernement du Sénégal à adopter une loi euh, de protection des des des ñoo xam ne ñu leen di woowee lanceur d'alerte comme à l'image de de du Côte de la Côte d'Ivoire ou euh, du Nigeria ou encore euh, du Burkina Faso. ñu amal ndaje bi ngir waxtaane lépp lu jëm ci pàcc le di FFI ngir ñu mën a dooleel aar itamit ñi ñu duppee lanceur d'alerte yi ci fànn yépp su ko defee ñu mën a am fit di dénoncer li mel.